Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est votre émission L'Afrique en marche. L'Afrique en marche est une euh, rubrique proposée par Cheikh Ousako, ici à Salam Vision. Notre sujet d'aujourd'hui euh, se focalise sur la longévité des pouvoirs de certains chefs africains à travers le continent. Euh, Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur l'élection présidentielle qui vient de se dérouler au Congo-Braza. Au Congo-Braza, où le président sortant, Denis Sassou Nguesso, a été réuni pour, imaginez-vous, un sixième mandat. Euh, ce dictateur, âgé de 78 ans, doit diriger ce pays 5 ans, ça va faire 42 ans de règne et, nous disons, d'autoritarisme. Trop c'est trop pour ce continent. Euh, son adversaire politique est finalement décédé lors d'un envoi dans un avion il s'appelle 10 parfaits choléra, selon certaines sources, décédé du covid Mais hélas, la vie est ainsi faite. Euh, pourquoi ces chefs d'État africains est resté au pouvoir pendant des décennies Mais c'est inadmissible pour ce continent africain. Où va l'Afrique Qui sont ces Africains Il est temps de dire non à l'autoritarisme il y a la dictature qui gangrène euh, les États africains. Le Congo a traversé une situation difficile. Le pays président du Congo, Fulbert Loulou, euh, il y avait Massamba Deba, euh, Pascal Lissouba, aujourd'hui Denis Sassou Nguesso, qui est au règne, qui est au depuis peut-être ans. Il n'est pas le seul il y a le président équato-guinéen, euh, Théodore Obiangema, qui est au pouvoir depuis aujourd'hui 42 ans. Chers Africains, trop c'est trop. Il est temps de changer le visage de l'Afrique. Il est temps également que les Africains puissent prendre leurs responsabilités. Nous sommes des intellectuels euh, qui n'ont aucune ambition, des intellectuels qui risquent les bras croisés, des intellectuels qui n'ont aucune proposition euh, à, euh, nous, à nous pour le continent africain. Nous quittons la Guinée équatoriale. L'ancien, avec Paul Biya qui est au pouvoir, imaginez-vous, 36 a dirigé ce pays de fer. Nous allons nous rendre également en Ouganda, Yoweri Museveni, 37 ans de règne. Il président Mugabe qui est décédé, qui a aussi dirigé le Zimbabwe pendant 38 ans. Omar au Soudan. Et euh, nous allons nous rendre également en euh, pour euh, se positionner au pouvoir il a rempli un troisième mandat. Euh, parlons aussi de Daraman Ouattara, le président ivoirien, et pourtant avait dit qu'il va se retirer pour céder la place de la jeunesse. Mais euh, a trompé le peuple ivoirien. Chers Africains et chères Africaines, euh, cette émission L'Afrique en marche continue de sensibiliser et de conscientiser les Africains euh, sur tous les qui nous aident. qui nous guettent. Il y a les conflits ethniques, les conflits économiques, euh, ethnicistes. Euh, L'Afrique a faim. L'Afrique euh, traverse la pauvreté. Notre chère Afrique aujourd'hui est, est par des conflits un peu partout sur le continent. Il est temps que les Nations Unies, l'UIA, euh, à quoi sert cette organisation panafricaine qui n'est qu'un syndicat des chefs d'État. Il est temps aussi que l'UIA et la CDAO puissent prendre leurs responsabilités pour nous proposer des solutions concrètes et idoines pour sortir nos chers de la souffrance, la malnutrition et de l'instabilité politique. C'est ça le continent africain. Euh, L'Afrique en a ras-le-bol de ses dictatures. Il est temps euh, de revoir nos mentalités. Il est temps également que ces chefs d'État qui ont duré pendant des décennies au pouvoir puissent céder la place à la jeunesse africaine nous lançons cet appel à tous les africains ma ne mbokku yi euh, tey ñi waxtaan ak mbirum Congo Brazza Congo Brazza am na indépendance en 1960 ki fay jiite mooy le président Denis Sassou Nguesso euh, fanweeri at ak ba léegi mi ngi jiite réewum Congo ak dictature ak euh, jaay doole loolu du Afrique. Afrique day gën dellu ginnaaw euh, ñan ñooy africains yi ñan ñoo war a euh, euh, soppali Afrique ma ni Afrique am na ay cadre Afrique bare ay ndaw ñu ñoo war a góorgóorlu jëlee fii dictature yi Denis Sassou Nguesso nag yaa gën a si pouvoir bi mi ngi jël bi mooy juróom-benneelu mandat am na ku doon xëcc xëccool réew mi beneen candidat bu ñuy wax Guy Parfait Korea xam nga la génn naa duna ginnaaw ba leen feebaru jàngoro yi coronavirus euh, di woo africain yi nañ jël seeni motuwaay Afrique ñoo ko bokk Afrique war nañu diisoo bari na ay intellectuel ay borom kàngam te war nañu soppali ko Afrique Afrique mën a jëm kanam mais Afrique bi ñu gis ni bari na ay dictature nga dem Guinée équatoriale am na président bu ñu wax Théodore Obiang Nguema euh, presque ñeent fukki at euh, à la présidence Paul Biya fële ci Cameroun 37 ans Ouganda Yoweri Museveni 37 ans nga dem Omar El Béchir euh, daaneel nañ ko dafa ba 36 ans de pouvoir euh, am na nag ñu foqati ay troisième mandat mel ni Alpha Condé jaay doole Guinée ba jël ñetteelu mandat Alassane Ouattara même chose euh, ma loolu dafa war a dàq Afrique africain ñoo war am jël seen responsabilité seen i motuwaay jëlee fi dictature yi dafa doy sëkk. Euh, émission l'Afrique en marche nag dina gën di euh, sensibiliser africains yi gën leen di ñaaxaat ñu ànd ak dal defaraat Afrique Afrique bi ñu gis nii day gën di dellu xole xoolee tey Afrique dafa la saxal jëm si mbirum dël mbirum koom-koom mbirum euh, dundu Afrique loolu du Afrique xoolee tey dëkk tugal yi ñi ngi avancé ñi ngi organisé wu ñi ngi dajale di def ay ay action mais Afrique tey conflit dañu bari xam ne gis nga li xew Mali gis nga li xew Niger gis ngeen li xew euh, un partout man yi dafa doy ñu defar Afrique bokk ndey bokk bàyyi tey moo doon vraiment euh, moo doon tey l'Afrique en marche di ñaaxaat euh, suñu mbokk africain yi intellectuels yi nañu génn bureau yi wax ak ndaw yi wax ak chef d'état yi dafa doy muy dictature bi sur sa continent africain tey daal moo doon sujet l'Afrique en marche si présentation bi Cheikhou Sakho mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen àllarba incha allah